allo salaamaaleykum Macky Sall Sall ah Macky Sall Sall président Sall Sall Sall Ngari Sall Ngari Lam Tooro Sall Ngari Lam Tooro buuru buuru APR buuru APR Macky ziar naa la ziar naa la waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar naka nga def. mbaa ñëpp a ci jàmm xam nga ki man de xale yi ñoo mu yónni woon rek pour ma yëgal la suñu xew mi le 30 samedi waaw samedi dañoo dañoo woote waaw sunu candidat waaw Ousmane Sonko waaw waaw mel ni mi waaw Ousmane Sonko moom dañuy investir dañ koy xewal rek xam nga dañoo gëj a fetu dañoo gëj a fetu investiroon nañ ko ba pare defoon nañ ko sunu candidat ba pare waaye samedi nag dañ koy dañ koy feteel dañ koy feteel waaw dañoo woote fee terrain akapes waaw kay sàll terrain akapes la waa parcelle terrain akapes woote woon nañ fa mosoon nañ faa dem waaw mooy sunu ndaje bi biñ fa mujjee def ak moom waaw bu mel noonu rek waaw bu mel noonu wala mu ëpp ko tuuti rek mu ëpp ko tuuti waaw bu mel noonu baa mu ëpp ko tuuti rek waaw dégg nga nga Sall waaw le 30 Macky Ndao la dafa fort nawle dafa foor te ci Sénégal lañ bokk ñun ci askan wi lañu bokk de ci sa njaboot lañ bokk sa njaboot lañ bokk Saliou waaw ñun ñun waxoon nañu ak yow jéem nañ laa napp jàllul jéemoon nañ laa napp jàllul jéemoon nañ laa tiital tamit jàllul waaw ñu ngi nañ waxtaan ak yow rekk sàll waaw Saliou ñu yaay buuru Fatick waaw buuru APR mooy Paye Sall gis nga teg nañ lépp ci suuf gis nga lépp teg nañ ko ci suuf lépp teg nañ lépp ci suuf le 30 rek le 30 waaw mooy samedi mooy samedi yàggul samedi ci ngoon la rek ci ngoon 3 heures lay commencé 3 heures waaw 3 heures la ñuy commencé dinañ fa bale dinañ fa bale ba mu set bu ñu paree itam dinañ ko bale 3 heures rek euh, ba ba ay timis bu ñu nodd timis rek ñu arrêté waaw du yàgg du yàgg du yàgg nga waxal ñu ko préfet dégg nga waa euh, Kay Sall waxal ni ko préfet waxal ni ko Sidiki Sidiki Kaba waxal ñu ko ko yëgal ko ko waaw waxal ñu ko gouverneur gouverneur tamit nga waxal ni ko ko waaw waxal ñu ko Amadou Ba nga yëgal ko ko bu mu ne sax ba a yendu foofu xam nga xale rek nañu mel waaw te bu fa yendoo waa këram gi dañuy ñëw ci xew mi te mu wét waaw mu bàyyi rek mën na dem mën na dem ba ba samedi ci guddi ay ay ay huit heures rek bu ñibbisee dina fekk lépp jeex incha allah waaw dégg nga waa kay waa kay sàll adduna amul solo adduna amul solo nawle dafa foor nawle dafa foor ci réew mi lañ bokk ñun de ci réew mi lañu bokk ndeysaan te wax dëgg yàlla kuñ fi gënul gënoo ñu fi laay ñëpp fetu nañu nag ñëpp xew nañu ñëpp xewle nañu ñun daal ñoo ci des waaw wasall ma ne woon naa la ko ñëw wax si rek waaw naa la ko wax si rek ci njekk ak teraanga rek waaw ci njekk rek ngir saan ci njekk rek ñoo bokk réew mi waaw sunu frère diaspora yi ñoom Issa Diène na ñoom ñoom Habib Anne ñooñ ñooñu ay waay bu leen bàyyi ñu ñëw rek mag yi ñu fekke si ko àdduna am solo waaw ak ak ñi nekk des ci prison bi mën nga leen génnee Macky génnee leen ak jigéen ñi ci fin d'année bi nii nee ñu ko cadeau fin d'année xam naa ni sax suñu candidat moom Ousmane Sonko moom pour nga génnee ko moom du yomb waaye kooku mën nga xaaraat ba ci kanam xaaraatal ba ci kanam parce que boo defandoowee lépp tam day metti waa kii wal ba après fête après nga génnee ko waaye xam naa ni kii bësal xol bi rek bës leen xol bi rek dégg nga waaw kay sàll waaw kay sàll ndeysaan Macky eh, Macky mii rek Macky daal ah ndeysaan da ko xorom rek moom Macky moo amul problème moom problème moom bu ñu waxee moom ci njëkk ak teraanga rek comme comme wax nañoo moom façon bu nekkee jàllul ñu wax yow ci njëkk ak teraanga rek dégg nga Macky waaw kay ndeysaan Sall ah Sall yow réew mi gisoo démb rek sa biis yëpp a ngi dox macha allah biis yëpp a ngi dox normal waaw bàyyi ñu rek bu ko defee ñu jël bii si sax ba parcelle ñu wàcc ñu bokkaale ci inigration bi noonu dafa foor adduna amul solo. ah ñun ñëpp lañu invité ñi ñu invité sax bëriwul ñu invité bëriwul tailleur la ñu invité ak menuisier yi ak artisan yi ak marchand ambulant yi invité nañ tamit ndongo daara yi invité nañu jigéen ñi invité xale yi invité paa yi invité euh, euh, cordonnier yi invité nañu itam euh, jàngalekat yi invité syndicaliste yi invité nañ tamit étudiants yi invité nañ leen waaw invité nañ leen invité nañu association des femmes association des jeunes invité nañu association des des des des kullu kullu euh, jàngalekatu alxuraan ak kullu jàngalekatu nasaraan jàngalekatu anglais invité nañ leen waa invité nañu waa parcelle invité nañu coordination Sénégal yëpp ñoom la ñu invité invité nañu ñëpp dëkk yëpp la ñu invité ku lim day juum xamuñu nag suñu mbokk yi dañoo tasaaroo waaw ñii la ñu invité rek waaye barewuñu ñu invité barewuñu de ñun kese rek ñun kese rek ñun kese mooy comme parcelle rek ñu fa defoon waaw ñu ñooñu rek ñoo fay tase waaw samedi samedi waaw samedi le 30 la yàggul trois heures rek ba 7 heures 7 heures pile ñu arrêté wallaay lazim 7 heures rek bu ñu noddee rek ñu arrêté waaw waaw kay sàll waaw kay kay sàll ndey sàll ndey sàll ah yow sax invité nañ la yow sax invité nañ la waaw invité nañ la de yow yéen ñëpp invité nañ leen invité nañ dem opposition bi ah waaw opposition bi yëpp lañ invité waaw képp ku nekk ci opposition bi rek invité nañ la waaw invité nañ société civile bi invité nañ société civile bi chroniqueurs yi journalistes yi ah, analystes yi économistes yi invité nañ leen parce que dañoo bëgg a defaraat Sénégal invité nañ euh, économistes yi waaw invité nañ invité nañ ñëpp rek avocat yi tamit invité nañ leen ndeysaan ak ñoo sonn ak ñoo sonn ndeysaan ci xeex bi waaw avocat yi waaw ñoom tamit invité nañ leen mais barewuñu barewuñu avocat yu yu bëgg Sénégal yi rek ak sénégalais yëpp rek ñu bëgg Sénégal ñooñu rek la invité waaw ñooñu rek la ñu invité bàyyiwuñu kenn nag société civile mouvement citoyen mouvement politique mouvement culturel association sportive waaw ñooñu la ñu invité waaw yow sax invité nañ la waaw ak ak yéen mbokk yi yéen ñëpp daal ku mun a ñëw yoo xam naa ne nag xëy na doo doo mun a ñëw mais mun nga ko seetaan mun nga ko seetaan ci télé bi rek incha allah télé bi mun nga ko seetaan waaw waaw dégg nga waaw kay waaw kay waaw kay waaw kay Sali Ngari buuru APR waaw kay nga góorgóorlu nag góorgóorlu nag wax dëgg yàlla góor ah. góorgóorlu nag dégg nga gis nga teg naa lépp wala teg naa lépp ci suuf waaw lépp a ngi nii lépp rek teg naa lépp góor góorgóorlu rek nga ngeen may ñu ko dégg waaw waxtaan seeg préfet waaw préfet waaw bisa préfet waaw kay préfet waxtaan seeg moom waaw dégg nga waaw amul solo du yàgg du yàgg déedéet duñ fa yàq dara dañuy dañuy fetu rek dañuy fetu rek ndeysaan ah daal di kii dañ koy décorer dañ koy tappal ay kii ay galon waaw ay galon dañ koy tappal waaw yàggul dégg waaw kay sàll nga góorgóorlu nag ndeysaan bu ñu kenn dégg nag waaw ñun góorgóorlu rek bu ñu kenn dégg bu ñu kenn àtte waaw ndax ñëpp xew xew nañu ñun suñu xew mi rek ci des <laughs> xew yëpp am na fi <laughs> waaw suñu bës rek ci des bu ko defee après xew yu clôturé waaw góor góorlu rek góor góorgóorlu bu ñu kenn àtte ñu kenn dégg daal ñu kenn dégg amul solo amul solo waaw kay sàll waaw kay sàll ndey sàll sàll waaw adduna amul solo adduna amul solo dégg nga waaw adduna amul solo waaw yow yow kenn mënula kenn napp la kay Sall amul solo dégg nga waaw kay samedi la samedi 3h 3 lay commencé jeex 7h waaw. tere ak apes waaw tere ak apes mooy tere bi nekk ci ginnaaw marché bi waaw foofu soon nañ fa def meeting waaw mooy sunu ndaje bu mujj bi waaw kay boobu la rek bu bu toll noonu rek la ñuy def bu toll noonu wala mu ëpp ko tuuti rek waaw kay Sall.